mbir mu yéeme te waar ñu daal di koy nemmeeku ci dëkk bii di Kaolack Kaolack googe nag lu yéeme te am fa ginnaaw guddik lii di samedi jàpp dimaas ñu nemmeeku ne benn waay bu ñu njort ne moom mii de borom ñaari turi la moom nag ginnaaw bi ñu ko dencee ci armée li lew na yi ci la askan wi daal di màbbu dem ci armeeli li jël waa ji génne ko sulli ko yóbbu ko ba ci li nga xam ne moo di mbedd mi daal di ko taal lu nu mel nag jamono jile mu jurub wax ak waxtaan ci fi nga xam ne nii moo di Kaolack lu nu mel nag mu ngi am depuis àllarba ba léegi ginnaaw ba waa jooje faatoo ñu jàpp ne kii de borom ñaari turi la moom sax mu tabaxoon ak kër fa nga xam ne moo di Daaru Salaam nekk fële ca Ndàngaan xamle woon ne am na néeg bu mu fa bàyyi bu faatoo nañ ko fasul loolu nag taxoon askanu Ndàngaan ne du ci dal rawatina ñu dëkkee ci gox bile di Daaru Salaam lu nu mel nag juróon jàppante ci diggante askan wi ak ñi di takk der yi guddik lii di aljuma jàpp lii di samdi ginnaaw nag ba nu xëyee tey jile ci samdi gi ñi nga xam ne nag ñoo di askan wa ci ngoon gi la yëg ne am na benn waay bu ñu denc ci armée li lew na yi te mooy waay ji nga xam ne moo faatu di borom ñaari tur yi naka noonu nag kilifa yi nga xam ne ñoo dëkkee ci na ànd ak askan wi ñëw ba fi nga xam ne moo di armeel yi daal di sulli niw borom ñaari tur yooyee di góor jigéen yóbbu ko ba fi nga xam ne nag moo di ci pénc mi ci mbedd mi daal di ko lakk ba mu jeex tàkk moo doon mbir mu doy waar yéeme lool amee fi nga xam ne moo di Kaolack ginnaaw bi ñu jàppee ne kii de borom ñaari turi la depuis àllarba ba léegi nag mu faatu ñu bugg ko suul ca këram gi nga xam ne moo xam ne woon ne bu faatoo nañ ko suul foofe ci ab néeg askanu dëkkee ca gox boobe ne duñu nangu mukk ñu fay suul borom ñaari tur yi loolu nag juróon jàppante si diggante takk der ak askan wi ginnaaw nag bi ñu yëgee xabaar ne na ci ay jege ñaaleem daal nañ ko indi ci armée yi lew na yi denc ko fa moom borom ñaari tur yooyee askan wi nag ci lañ wutali foofee ca armée ya daal di koy sulli indi ko ba fi nga xam ne nii moo di ci pénc mi daal di koy lakk ba mu jeex tàkk moom kii di góor jigéen boobee nga xam ne santam Fall lay wuyoo mu doonoon koo xam ne nag yàgg na lool ci gox boobee ñu bëri xamoon ko ràññee ko ci li nga xam ne moo di jëf jooje gox bi nga xam ne la dëkkee sax ñenn ñi jàpp ne foofee ñu ëpp ci yenn ci ay soxna dañ fa daan amal li ñu naan càkkatu muy jaay seen bopp loolu la nag jamono jile jurub waxtaan ci dëkk bi di Kaolack ginnaaw bi ñu fa sullee niwub borom ñaari tur yi di góor jigéen daal di ko taal lakk ko ba mu jeex tàkk fi nga xamante ni moo di ci armée li lew na yi ñu ko suloon dañu ko sullee indi ko ba ci digg pénc mi daal ko taal moom góor jigéen boobee ba mu tàkk ba jeex tàkk